jëlale ak jéggale donc voilà je n'avais pas vraiment prévu de faire un live aujourd'hui parce que je me suis dit euh, comme c'est le mois du Ramadan et que machallah euh, c'est un mois de partage et néewuma ni que mat naa je ne dis pas que je peux tout faire et je ne dis pas que je suis mieux que quiconque mais euh, par humanité j'aime partager surtout le mois boo xam ni c'est mois béni sachant que tout le monde euh, non tout le monde n'a n'a même bourse ça veut dire quoi ça veut dire que gi ñëw na euh, njëg gi cher na maanaam fi lépp a ak corona bi jot jàll ni ñëpp mënuñu jënd lu doy ñëpp mënuñu ravitaillement def ay ravitaillement seen kër maanaam ndog bi mën na am peut-être mu metti donc c'est le mois où le partage doit se multiplier c'est le mois où nous devons nous aider en tant que frères et sœurs musulmans sachant que il n'y a pas un mois d'aide mais c'est un mois mieux c'est un mois béni c'est un mois qui vaut tous les mois donc c'est le mois où tout le monde doit faire le maximum voilà donc euh, li may def je pense que duma ko wax dinaa bàyyi incha allah ba àjjuma ma def li ma war a def te duma ci xaar kii que ce soit et séntu ma ci dara lu dul nit ñi gis parce que bëri na ñu bëgg def Sénégal te kenn du gis mais dëkk bee wóorutul dëkk bi ñu ne moo wóorutul lu waaye def dafa war a leer nit ñi war koo gis parce que y a des gens qui sont tellement petits de de de de de. euh, petit, pas d'esprit, mais petit, tout type. Il y a des gens qui sont, euh, comment je veux dire, <laughs> petits, et tout type. Qui sont pas, qui sont pas valeureux, à mon valeur. dañuy gis kuy jéem di jàppale niw ju doole yi ñu ñëw naan ko musuñu laa gis nga maye musuñu laa gis nii nii nii pour éviter la polémique comme ce que je fais d'habitude sachant que euh, les choses les plus importantes se font en bas mais des fois dafay baax nga woo tele woo rajo ñëpp wër la parce que réew mi loolu lañ xam il faut nga indi tele indi rajo ñu def la revue de presse am ay dara jàpp la tës ñu wax la tës wax la euh, quotidien réew mi nit ñi mën a xam ne yaa ngi def tant yaa ngi def ci suuf defoo dara dangay ngay mu da ngay tiitaru du dëgg donc euh, li may def dinaa ko def duma ci xaar kii que ce soit voilà noonu le message que j'ai pour baax Barthélémy Diaz parce que je ne vais pas laisser passer ça je suis désolée samay caméra jël nañ vidéo bi donc j'ai des preuves de ce que j'avance si jamais l'histoire va plus loin si jamais cette histoire va très loin et je sais que ça va aller loin parce que man lu ma bëgg mu dem loin dana loin man lu ma bëgg mu arrêté dina arrêté mais comme man maa décidé histoire bi dem loin ba kii de droit mooy le président son excellence monsieur Macky Sall j'aimerais qu'il euh, euh, si il peut l'entendre et je sais qu'il va l'entendre ce live là euh, léegi deux choses moo am Euh, ma boutique qui se trouve à la cité Kergorgi, en face du Auchan. Et euh, malheureusement, dans le domaine de la SICAP, donc le maire, on sait que c'est Barthélémy Diaz. Je ne dis pas que c'est lui, mais j'ai dit à Bart, sa agent yi, nga cerner leen. Pourquoi je le dis? Parce que je suis un honnête citoyen. sàccuma fenuma taxawaaluma damay liggéey ñaanuma un franc ou qui que ce soit. tàllaluma sama loxo ñëwuma sa mairie pour quoi que ce soit et idem pour tous les maires ñëwuma si qui que ce soit j'ai rien demandé à qui que ce soit mais qu'on me laisse travailler en paix et quand je dis en paix c'est que vos agents ngeen garder leen il y a ce qu'on euh, les droits de la mairie tout ce qu'on doit payer annuellement tout ça tout le monde le sait mais je dis que je trouve ça injuste que ma cliente se garde devant ma boutique waa mairie bi saboo ko je ne sais pas s'il y des gens qui sont dans le droit ñu nekk ci mairie bi ñu waxtaan ngeen gindi ma balaa may juum te je sais que juumu parce que déggoo naa ñu ma war a déggool amul benn loi bu ne nit boo gaaree sa buntu kër mun nañ la sabo voilà donc fii la sama cliente gaare sama buntu boutique boutique baa ngi nii buntu bi la gaare euh, agent mairie yi bu nekk mairie Barthélemy Diaz ñu ñëw sabo ko pour que client bi fay ko xaalis ñu dem ko est-ce que lii c'est client bu garé si buntu boutique bi je m'exprime en français la cliente s'est garée devant ma boutique elle est en train de faire nettoyer sa voiture le temps de faire ses essayages les agents de Barthélémy Diaz viennent se garer là et ñu sabo ko comme quoi que fi mu war a garer waru faa garer ils me disent ils disent à la cliente d'aller se garer en face dans le parking là-bas sachant que ce parking là ne m'appartient pas n'appartient pas à mon père, ni à ma mère, ni à mon copain, ni aux frères de mon copain. C'est un parking qui sont là, qui, c'est un parking qui est là pour ces bureaux-là. C'est-à-dire les gens de, de, de, de, tous ces bâtiments administratifs-là se sont cotisés pour avoir leur parking. Là-bas, nous avons la bijouterie, je zoome, la, la bijouterie d'Orobé. Nous avons Samsung, Samahari, Samadomde, nous avons PC Concept, bon, la pub gratuite. Du coup, nous n'avons pas fait Là, à côté de moi, nous avons la CBAO. Les gens qui sont à la CBAO, il n'y a pas de sabots. Donc, en fait, ils ont laissé la CBAO, laissé tout le monde et venir me faire des sabots, comme quoi que la cliente n'a pas le droit de garer devant mon magasin. Donc, je m'explique. Une cliente qui vient dans ma boutique, elle se gare devant mon magasin. Elle n'a pas le droit de se garer devant mon magasin. Donc, elle va se garer où elle va se garer où Elle va se garer où Je veux juste savoir, elle va se garer où Elle va se garer devant chez son père ou devant, chez, devant, le, devant le maire C'est-à-dire qu'il faut que, il faut qu'on se respecte. Et par prudence, j'ai pris la vidéo. Parce que tout le bâtiment, je vous montre, tout le bâtiment est sur audio euh, visuel. C'est-à-dire qu'on a tout est sécurisé. Les caméras sont partout. Voilà. On a des caméras partout, partout, partout. C'est-à-dire qu'on voit tout. C'est sur audio-surveillance. On voit tout. Et j'ai assisté à la scène. Et c'est plus de... Les, mes filles m'ont dit que la personne, c'est plus de trois fois que Moudefko. Nous avons fait trois fois. La dernière fois, la personne est rentrée dans le magasin pour dire à la cliente que regarde, c'est bon le magasin, qu'elle doit trouver une place ailleurs. Avec ça, on veut que ce pays se développe. Quelle mairie Je suis désolée. <laughs> Euh, bon, je vais porter plainte parce que j'estime que c'est une violation de domicile. Parce que, un, l'agent n'a pas le droit de rentrer dans ma boutique. Il n'a pas le droit de rentrer dans ma boutique. Il n'a pas le droit d'embêter ma client. Parce que qui may indil ay 100 et mille, ak 20 000, ak 30 000, ak lu mën ci doon. c'est ma valeur ajoutée moo tax ma nekk fii ci loolu laay jël fay ñi ma war a fay ci laay dund du ma yàq du ma nangu nag benn woyaa woyaa di yàq sama teraanga li mën a am mooy agent bu ma fi gisati man damay porter plainte maire bi muy monsieur le xaw ma monsieur le maire xaw ma Barthélemy Dias laay porter plainte parce que say agent la yow yaay maîtriser say agent nga wax leen lu ñu war a def lu ñu war a def ils n'ont pas droit d'embêter les gens mais c'est kër googu personne droit de respirer dès que tu gares là la mairie sabo sabo sabo sabo sabo sabo ba sa buntu kër il faut arrêter quand même il faut arrêter j'ai wedd gis bokk ci bu ma paree sama live la jël seen photo yi def ko ci internet bi parce que amoo leen fayda ñàkk ngeen fulla ñàkk ngeen fayda ñu toll ni yéen en veille de ramadan yow taloo looy dugg sa kër pour euh, commencer ramadan bi ngay dem di di di déranger un jeune citoyen ku mel ni man sàcc ma fenu ma taxawaalu ma wër yu ma damay liggéey ak facture si te góorgóoru ni mu méttee courant rek da nga fay ay cent et quelques mille jëm kaw mayoo ma ko kenn mayu ma ko dama bàyyi ma liggéey pourquoi tu empêches mes mes clients de garer devant devant, devant, devant, devant, de, de, devant, le, devant ma boutique. J'aurais été d'accord si ma cliente s'était garée dans la rue ou dans le parking, whatever. Mais devant ma boutique, j'ai le droit. La loi m'autorise de garer devant chez moi. Et je ne voulais pas laisser ça comme ça. Les gars, deux choses, moi, je ne veux plus les voir. Qu'ils ne mettent plus jamais leurs pieds, leurs sales pieds ici. Leurs sales pieds maudits. Ou une fête à wala ilaa lu ñu fi gis man la lu ñu fi dégg man la duma leen ko may tey du ma leen ko may ëllëg ñàkk ngeen fayda ñàkk ngeen jom bu ñu leen joxee post da ngeen koy liggéey mais ni rek ngeen di def leen poste doo leen liggéey après vous êtes là dëkk bi dëkk bi dëkk bi yéen a ko bonal bu bonee yéen la bu baaxee yéen la kon le problème c'est vous il faut arrêter maa ngi xaar ba beneen agent waat fi naan da ngay sabo dootoo ko defati dama koy xaañ ay xeer fi laay taxaw jël xeer yi tëpp ko fii mbëkk ko mu dem certificat 21 jours maa ko fi xaar bande d'inconscients, bande d'incapables. Vous êtes là, vous faites la honte de tout le monde. Hein? Des, de, de, de, de, grands gaillards comme vous, démolène honnêtement, vous êtes là à, à déranger les, les, les, les citoyens euh, qui, sont, qui sont là à se débrouiller honnêtement. Vous n'avez même pas honte, en plus c'est des hommes. Vous êtes des gens qui sont là, vous non, euh, euh, euh, la cliente, vous n'avez pas le droit de garer. Maintenant que je vais garer où Si je ne gare pas devant chez moi, je vais garer où Dans ta tête, ou dans, dans, dans, ton cerveau de, de, de, de, poisson, espèce de con, petit con que tu est que ta femme a, a, a, a ce que Ta femme, est-ce qu'elle a ce que Mel na ni man. ñi ngeen de waya di rek waya di rek ñàkk fayda ñàkk katu jom yi ngeen doon maa ngi xaar ba benn agent Barthélemy Dias naan mu ngi ñëw di ma saba suma buntu magasin boobu coow nekkatul agent beeg man de mais mairie beeg man la te fu mu yem nag neex waaw fu mu yem neex nag sama baat ci kaw fu mu yem neex je demande le respect ce que je dois payer en taxe je vais la payer c'est normal je travaille et je dois les taxes à la mairie c'est normal mais que des agents m'embêtent embêtent mes clients à plusieurs reprises j'ai des caméras bu ñu demoon ba ci yoon am na pour si pouvoir euh, euh, euh, am naa pouvoir justifier ko parce que caméra gis ngeen ko nii tout le bâtiment est sur audio-surveillance parce que je sais le pays où on est un pays boo xam ne kenn bëggul kenn dem waaw ku tardé rek merel sa ndey ku sa ndey liggéeyut rek bu demee nga jonkoon ca kanamam ne ko yaay mu ne naa mu ma tardé parce que c'est à ta mère que tu dois dire ça tu demandes des des des comptes à ta mère pas à moi je suis désolée qu'on m'embête plus qu'on me fatigue plus laissez-moi travailler tranquillement en paix ce que je dois payer je vais payer mais qu'on vienne pas mettre des sabots devant mon magasin pour des futilités et c'est la mairie de Barthélémy qui fait ça parce que c'est ça c'est leur mairie ils dérangent trop les gens ici j'en ai marre nag ñàkk ngeen fayda torop